caa sax noppi tax di wéyal seenub liggéey loolaa waral nag ba moom Ousmane Sonko njiital gouvernement bu Sénégal daal di dugal loxoom sàkku ñu daal di sàmmonteeg lépp loo xam ne rek mooy càkkuteefu président Bassirou Diomaye Faye Sud Quotidien faylu ko ci wet ga na jamono ji kay Ousmane ni ñuy tabaxee domaine public maritime bi nag ñu daal di koy dakkal ci ni mu gën a gaawee Sonko plonge dans le littoral loolee a xët wu njëkk yéenekaay bii daal fësal tey ji nag ñoom kilifay Sénégal yu tabax ci littoral bi nag la ñu bëgg rek bokk na ci ñu daal dakkal ci nu mu gën a gaawee loolee nga xam ne mooy liggéey ba premier ministre Ousmane Sonko nag jamono ji sóob na loxoom ci bile dossier nag doole ci yëf yi démb la élimaanu jooriñ bu Sénégal daal di ab décret boo xam ne rek dafa jëm ci ñu daal jëfee décision yi nga xam ne rek moo tukkee woon ci njiitu réew Sénégal Sénégal daal di taxawal ab commission ad hoc boo xam ne rek mooy saytu nag lépp lu jëm ci wàllum occupation yi le soleil yëgle bi ne commission ad hoc boobee nga xam ne rek moom la élimaana joriñ bu Sénégal taxawal moom la ñuy dénk ngir mu saytu lépp loo xam ne rek moo soxal ni ñu joxee titres yi nga ne moo jëm ci wàllu occupation yi ci yi a ciblé fileeg ñu ciy am lu leer joxoon nañu ay dogal ñii di waa DESCOS loo xam ne rek mooy liggéey bi ñu fay amal àpp nañu ko fi ñaari weer le temps mooy yëglekaay dellu siwaat ci dogal yi nga xam ne rek élimaana joriñ bu Sénégal Ousmane

na ci tabax yi nga xam ne rek moom la ñuy amal ci domaine public maritime bi ne Ousmane Sonko dakkal na lépp xam ne rek moo xam ci cité émergence ca terme sud li nga bi ñuy amal ci bi yéenekaay bi nag ne ba littoral bu ndakaaru bi rek loo xam moo gën a soxal nguurug Sénégal jamono ji te am na ay yoo xam feneen ak feneen yoo xam ne rek rek coowal suuf am na fa kon nag lan moo làqu ci ginnaaw ba waral njiitu réew mi ak kii di élimaanu jëwriñam nag taxaw rek ngir ñu daal di dakkal tabax yi nga xam ne rek moom la ñuy tabax fii ci ndakaaru yër leen boobee yëglekaay les éco yëglekaay dellu soir ci cong gi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci ay milliardaires yu nekkoon ci ancien régime bi ak majorité ba ci assemblée nationale Waly Diouf Bodiang nag ma ngay àddu jëmale ci mbir yi ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne mënuñoo bàyyi ay dizaine d'opposants milliardaires yoo xam ne dañuy nekk di taxawaalu ci am réew moo xam ne rek dafa nekk ci sous développé loolee nag xel mënu koo nangu te it mënuñoo doxal am réew ci ñaar fukki député ak juróom faaw rek ñu daal di am majorité bu am doole foofee ci assemblée nationale le Dakar waa xëy bind ci xëtam bu njëkk na déclaration bu dangereux moom la bo Bodian bu Pastef daal di amal ay xupp yoo xam ne rek jëmale na ko ci ku gi le peuple fell ko ne génn gi nga xam ne rek DG bu port génn na ko di àddu jëmale ci situation bu Sénégal nag yéenekaay bi ne ngandum dérapage moom la Waly Bodian def 24 heures àddu jëmale tey ji nag ci conseil interministériel bi nga xam ne rek moom la ñuy amal amal jëmale ko ci tabaski atum 2024 yéenekaay bi nag ne Ousmane Sonko jamono ji nag jël na fukki mesure ak juróom yoo xam ne rek mën naa tax ba ñu am xar mu doy fii ci réew Sénégal loolee lépp nag yéenekaay bi ne nguurug Sénégal saytu na ko ba jàpp ne nag lu toll ci 810 000 tête la ñu soxla laas yéenekaay ne tabaski 2024 Ousmane Sonko nag fas yéene naa taxaw ngir xeex lépp lu jëm ci seeraayu njëg yi nag waaye ma ngay taxaw nag ngir defanteeg ñi nga xam ne rek dañuy yëngu ci càccum jur gi lu soxal wàññi teg njëgu dund gi nag xam ne rek moo tukkee ci érimaana jëwriñ bu Sénégal moom Ousmane Sonko ma ngay xam ne nag mënuñoo tëb-tëb rek wàññi ndax lépp ca biti lay jugee la tribune addu jëmale nag ci saafara yi nga xam ne rek fileeg ñaari at rek la mën a yemb jëm ci njëgu dund gi nga xam ne rek tey jii la njiitu réew mi xamle woon ne nag daañu ko wàññi yéenekaay bi ne Ousmane Sonko dàq na ko ba jëmmi jamono addu jëmale ci les éco yëglekaay xëyee tey jii nag ci li nga xam ne rek moo jëm ci mbër di Lac de Guiers bi ne la ñu koy toppee bokk na ci coowal visa